internetu Leewtoo TV tey amaat mbégte jàkkaarloog yenn présenté leen beneen invité comme ni ñu ko tàmm di defee chaque jour ñuy xëy di leen indil ay invité ñuy waxtaan ci actualité làmb tey nag ñu def déplacement seeti fallu Ndiaye fallu Ndiaye di un grand promoteur ñu xam ko ci millier làmb Fallou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di am mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu équipe bu Leewtoo TV bi yëpp. di ko jiital ci yow comme vraiment yaa ko di nuyu seen kilifa gi di nuyu famille làmb yëpp di nuyu monde de la lutte comme ni ñu koy defee chaque jour. jërëjëf ñu nara waxtaan ci wàllum actualité situation làmb nu demee wax nañ dinañ wax également ci wàllu huis clos bi ak euh, tournoi de lutte simple bi nga prévoir Gambie loolu lépp doon ci dikkaat mais pour démarrer. Mhm. Fallou ça fait 11 mois maintenant euh, làmb amul situation boobu nan nga ko dundee. waaw mais comme ni ko Sénégalais yëpp dundee ah euh, yaakaar naa noonu lañ ko dundee. Mhm. ndax ku nga xam ne ne mois de mars daaw la làmb bëgg jàmm Sénégal. Mhm. te ko xam ne ñun war nañoo dëgg la 19 avril. Mhm. kon jàpp nañ ne ñim laal ñun ci lañ bokk. ñu amoon ci trois journées am ne war nañ ko dëgg. mais nag mbas moo ñëw mbas bu ñëwee dañuy xam ne natt la boo xam ne ci àdduna bi yëpp dal. yemul sax Sénégal kese mais ci àdduna bi yëpp dal partout. kon dañ koy. xam ne lu suñ boobam dogal la xam ne mbiru yàlla la mbiru suñ boobam nag kenn mënu ci dara ah di def comme sénégalais yëpp rek am xol muñ def comme àdduna bi yëpp muñ comme ni nga xam ne moo fi am ndax du lu kente kenn mbas la boo xam ne moo ñëw ci réew mi dalandoo ci kaw ñëpp c'est vrai tournoi journée tournoi date yi nga fa amoon ñan ñoo ko waroon a bëri yan mbër waaw suñ première journée ñu ngi war a def ba ba Birahim Blende moo war a nekk ci mois d'avril bi bu ñu jógee ci mois d'affaire bi suñ deuxième journée mu ngi nekkoon booy Niang doomu Jalaaw. suñ troisième journée mu ngi nekkoon ki nga xam ne mooy Ada Fass Tapha Mbeur. nga xam ne ñu ko war a tëgg mois de juillet. muy ay dates yu am solo war nañ ci indi bébé mi ak ki nga xam ne mooy Papa Boy Djiné. andi ki nga xam ne mooy Mor Kankang. ak ki nga xam ne mooy boo Yëmbal. muy ay journée yoo xam ne journée yu am solo la woon. ñu ko doon xaar mais bi mbas mi ñëwee luñ man lee lu puus loolu lépp rek ba suñ borom dogal mu jóge ci réew mi ñu xool na la ñu mën a def pour taxawaat suñu activité d'accord saison bi démarré gut ba léegi mais est-ce que am nga information que kañ la war a démarrer benn date exacte boo xam ne ni comme que ci milieu bi nga nekk est-ce que am nga date boo xam ne ni saison bi jour boobu la war a démarrer waaw man moom wax dëgg yàlla awma benn information boo xam ne ni jóge na fenn. Mhm. bu wane ne làmb na ubbi wala làmb na am fii Sénégal. Mhm. dëgg yàlla awma ci benn information déggoo ma ko fenn tamit. pourtant temps ñi ngi liir ci waa CNG sa Ndiaye génn na dem ci journal suñu làmb suma juumul ne bientôt saison bi dina démarrer. loolu buñ ko waxee c'est-à-dire que ñi ngi koy waaj te buñ ko waaj am ngi nekk ngeen ci association forcément war nañ leen aviser wala demeewul noonu waaw xam nga ñun moom comme ni ñu koy wax tout le temps rek yaakaar naa acteur de la lutte moom ci promoteur lañ koy njëkkee mhm. su fekkee ne promoteur yi amaguñu benn écho bu tax ne lamb man naa am mhm. kon jàpp naa képp koy waxeet da ngay wax li nga xam ne nii moom nga gëm mhm. mais ñun daal li ma gëm mooy kuréel gi ma bokk ak man ni ma gis ñuy doxee gisaguma benn bunt boo xam ne nii gis war nañu ko wala leen lu ñu ubbi loo xam ne nii na woon ne làmb ngi ubbi déggaguma ko gisaguma ko d'accord peut-être nag mën naa am ñoom information bi comme ñoom ñu koy wax mais man moom jotaguma ci information boobu <laughs> pourtant depuis le 4 janvier passé su ma jumul euh, président Bira Sène yóbbul woon na protocole sanitaire bu yi wone woon ne euh, protocole sanitaire boo xam ne nii euh, dañ ci def ay information pour que làmb ji mën a démarrer le 4 janvier ba léegi est-ce que amul benn information bu génn boo xam ne nii war na na mën a war na mën a démarrer saison bi. waaw comme ni ma la ko waxee rek wax dëgg yàlla depuis boobu ba tey. Mhm. man dégguma dara ci làmb loo xam ne day wane ne làmb mu ngi ci yoonu ubbi wala làmb ngi waaj ubbi en tout cas am na lu ñu laajoon. jox nañ leen ko ñu ngi toog leen déglu comme ñooñu ko laajoon peut-être bu ñu nee ba war koo def dinañ ñu wax bu ñu nee ba mënuñu koo def it dinañ wax ñu ngi toog leen déglu d'accord li leen laajoon su ma juumul moom mooy seen projet de budget mhm. projet de budget ba demoon nga fa yóbbu sa projet de budget lan nga tënk ci projet boobu waaw li ma tënk ci projet bi mooy comme li ñu ko waxee ñoom dañ ne nañu xool li nga xam te ni moom la ñuy fere ci suñuy làmb mhm. mooy li ko commencé ci mbër yi ba ci tëggkat yeeg mhm. waykat yeeg ñëpp ñu defar suñu ay projet comme ñëpp yóbbul leen ah bi leen yóbbu leen nag comme ñun yóbbu lañu am te ñoom ñoo ko laaj. li man mooy yóbbu leen toog leen déglu. Mm-hmm. mënuñoo wax leneen lu dul toog leen déglu. yaakaar naa comme jox nañ leen suñu ay projet de budget comme ni ko promoteur yi defee comme man. li ci des mooy leen déglu ni ñëpp di dégloo rek. foofu lañ ci tolloon. d'accord projet boobu lan ngeen ci def en tant que yow sa projet lan nga ci def euh, bénéfice yi nga ciy xaar. wala li euh, cachet mbër yi lan nga ci def exactement. waaw man moom comme ni ma ko waxee rek euh, yaakaar naa am na ci ay plateau télévision yoo xam ne wax mhm. ma ci def. Mhm. mooy li nga xam ne laay fay mbër ndax actuellement damaa jàpp ne tolluñu fu ñuy wute ay bénéfice mhm. ci lamb fi ñu toll mooy nan lañuy def ba mbër yi nga xam ne jox nañ leen xaalis mhm. ñu génn ci situation bi ñu nekk mhm. ñun suñ koppar yi nga xam ne mënuñ ci dugal ñu fexe ba jot ci jàpp naa ne foofu lañ toll mais tolluñ foo xam ne day dugg ci ñun ndax buñ ko dee nax suñ bopp te yaakaar naa waruñu ci yéene ci logique boobu est yaakaar nga ne état bi mën na euh, promoteur yëpp liñ fay seen kaase mbëri mu delloo leen ko mun tëggee ko ma waa xam nga ñoom ñoo ñu laaj. xam nga ñun woowuñu leen imposé leen ne dañ leen jox ay projet de budget. ñoom ñooñu woo ne ñu indi leen ñu ay projet de budget pour ñu waxtaan ci. Mhm. kon jàpp naa am na ñoom ñu ci xalaat ba wax ñu loolu. nit nag du la wax nga koy jiru ci lim xalaat dañ koy déglu. comme ñoo ñu laaj nañ leen déglu rek ñun jox nañ leen. Mhm. ñu ngi toog leen déglu rek. peut-être dinañ am suivi peut gis nañ fi temps yi tamit benn problème bu soulevé wu mooy la guerre des dates euh, Gaston Mbengue génne ne na 4 avril bëgg na ko bi mu defee loolu Sambaay fal génn également ne 4 avril moo ko moom. Mhm. nan nga jàngatee werante boobu ci date yi. non loolu damaa jàpp ne erreur de communication la rek euh, ci ñoom ñëpp. Mhm. li tax ma wax loolu mooy bala ñuy wax date dañuy fekk CNG ba pare man ci philosophie bi ma am ak gëm-gëm ma ci làmb ak ni làmb buy doxee ndax. Mhm. nit booy wax da ngay wax ci loo xamante ni noonu lay noonu la mbir mi nga nekk di doxee. c'est tey kenn mënut jël date te CNG ubbiwul. Mhm. nit nag am na suwaane bëgg naa. Mhm. ki am suwaane bëgg naa kenn mënu koo bañal. ndax man mën naa am suwaane tey suñ ma joxee la 5 avril wala 6 avril wala 7 ma tëgg. Mhm. alors boobaa sama élection laa nekk ndax am naa promoteur la gis naa ne am naa suwaa ci date bi laa ba a tëgg am naa droit def sama appel ne date bi laa bëgg a tëgg. loolu jotewul dara. ak len Samba yoo dëgg la Carafil wala kenn war dëgg la Carafil pour man loolu dara pour man du guerre de du dara ndax bala ngay nekk ci guerre de date day fekk lamb ubbi. wala tey CNG ñëw. te mm-hmm. yaakaar naa muy CNG de lutte wax nañ lu leer ci problème yooyu. Mm-hmm. lamb yi nga xam ne ñoo fi nekkoon. Mm-hmm. ñoom lañuy ñuy lijjanti ba pare doog a lijjanti yeneen date. kon yow problème mënu fee am. c'est-à-dire damaa jàpp ne gars ñoo bëgg créer problème rek mais loolu <laughs> du tey nit ku ne am nga. sañ-sañu ne bëgg naa tëgg ci date bi. soo ko amee ak soo ko amul. loolu moom problème amu ci pour man. gis nañ ne 4 avril date stratégique la parce que moom mooy fête indépendance. day fekk nit ñi génn pour mu mën a dem seetaan yi la am mais est-ce que Fallou à part ça Fallou am na ay dates yoo xam ne nii choisir na ko pour que buñ ko ko joxee mu tëgg. non actuellement nii man choisir ma benn date. Mhm. ndax man euh, wax ci làmb pour xaaru. Mm-hmm. <laughs> déw ma ci làmb ji pour jaay li ma yor wala pour tooxal sama bopp déedéet mm-hmm. man daal laaj nañ ma projet de budget joxe nañ suñu ay projet de budget mm-hmm. ñu ngi toog di xaar ndax làmb tamit bala ngay dem da nga xam foo koy teg ndax dañ ne làmb huis clos lañ wax te làmb huis clos mënta dem sans accompagnement am man suñ ma accompagné wut samay làmb foofu laa koy teg ba Covid bi jeex ma ñëw organiser samay làmb mais xëccoo ma yàkkamtiwu ma jëlu ma dat jiw maa dem fenn ma daal maa ngi toog di xaar comme ñëpp. donc kon Fallou bu gisul lu mu xam ren du tëgg. non maa ngi jëm Gambie. <laughs> ngeen ci ñëw ok à part ça euh, CNG initié na les mercredis la ren maanaam chaque mercredi day fas yéene tëgg ay combat espoir yi nag lay gën a viser. Mhm. loolu ba nga dëggee est-ce que du leen du leen concurrencer. waaw non mais xam nga lamb moom tout le temps li ñuy wax mooy. <laughs> bu ñu gisee ñun promoteur dañuy sant yàlla bu ñu gisee ku ñëw ne day dëgg làmb dañuy sant yàlla mm-hmm. mais ñu leen di conseillé di leen ñaanal rek ne leen mm-hmm. buñ ko continuer ko commencé yàlla nañ ko continuer rek mm-hmm. dangaa yaakaar a continuer non dama leen ah, ni koy waxee cest à am na loo ci xam loo xam ne nii peut dina métti ci moom ba duñ ko mën a continuer waaw non mais xam nga ñoom dañoo def seen choix ne bëgg nañu ay makers yi ñoom nee nga ñoo ko wax moo tax leen ñaanal yàlla ñu continuer ci rek d' accord léegi ñu dugg ci sa tournoi bi nga bëgg a def Gambie. pourquoi nga euh, non seulement defoo dit avec frappe lutte sans frappe ngay def. pourquoi nga nekk ci lutte sans bi. waa xam nga ñun euh, Gambie dañ fay yàgg bëgg a dem. Mhm. avant Covid sax ñu ngi doon prévoir pour dem Gambie ndax dañu fa doon wóolu bare bare. Mhm. bi ñu gisee ne lamb Sénégal xaw na sooxe. wala lamb ji boo euh, gars yi tëggatuñu wala Covid bi mu ngi ñuy sonal. Mhm. a ah, ñu gis ne Gambie ñu ngi organiser ay lamb. a ah, te ñun am nañ ay partenaire Gambie am nañ fa ay xarit. Mhm. a ah, ñu ne nañ ji xool li ñu doon def fi Sénégal ñu xool ban part la ñuy jaar pour dugg Gambie. Mhm. xam nga dèjà ci frontière bi lañ commencé. ndax phase boobu ñuy tëgg lamb ji diggante Sénégal ak Gambie la. bu jógee foofu dañuy dem ci capitale bi. foofu ñu ngi fa teg 1 million 250. bu ñu jógee foofu bëgg nañu yóbbu mise bi 5 ba 10 millions. ndax war nañu mën a jàpp ci làmbu Gambie pour suqali ko comme làmb amul Sénégal. ndax dañoo jàpp ne Sénégal ak Gambie yëpp benn la. même famille bi la. même nit ñi la li sénégalais yi wax noonu la Gambiens yi wax kon jàpp nañ ne tey organiser làmb Sénégal ak organiser ko Gambie. benn la rek. dèjà lit affaire frappe bi sax commencé nañu am ay contacts yoo xam ne ñu ngi ciy xool nan lañ ciy duggee. Mhm. ba nga xamante ni nañ xool mbër yi gën a yëg foofu. Mhm. xam ne ñoom ñooy estaaru Gambie ci wàllu làmb ñu mhm. ji ma xool nan la leen organisé ci estaaru Gambie yu mag yi def fa événement yu rëy yu mag ndax mhm. actuellement nii vraiment gis nañ ñi accueillir ak nit ñuy taxawoo ak nit ñu bëgg a jàppalee foofu te demaguñu kon yaakaar naa loolu dafay dalal suñu xel gën ñoo pousser pour ñu mën a dem ci loolu. maa ngi fàttali ne tournoi bu yaa ngi ko prévoir ci Fass du vingt vingt sept au vingt huit vingt janvier bii ñu nekk. maanaam février mhm. février waaw quelques semaines moo ci des. waaw quelques deux semaines moo ci des ah. d' accord léegi pourquoi nga euh, choisir dem Gambie alors que non est ce que ay mbëru Sénégal nga yóbbu. wala mbërug waa Gambie rek ñoom ñooy bëre. waaw xam nga ñun moom liñ man mooy euh, teg miis. Mhm. mbëru Gambie dañuy ñëw ndax boo xoolee lamb yi fa am ni yëpp mbëru Sénégal yaa ngi bëree mbëru Gambie yaa ngi fay bëree. c'est boo xoolee un bi fu mu jotee ak mbëru Sénégal moo ko jël muy Pape Thiam. Mhm. te kooku Sénégal la fii lay bëree affaire frappe kon tey lu mel noonu su amee duñ man leen lu woo ñëpp rek lancé appel boo xam ne nii pour mbaru Sénégal ak mbaru Gambien yi ñëpp ñu ñëw daje ñu vraiment def loo xam te nii lu rëy lay nekk ndax événement bu mag lañ fi bëgg a def mhm. ndax tey dañ ko mhm. mu war a ñëw wóorutoon nañu bi si heure mais def nañu comme da ngeen may sargal te ay doomu Sénégal ngeen dañuy bàyyi suñu yite ñëw Sénégal pour ànd ak ci bis bi jàppale leen ci communication bi jàppale leen ci lépp li nga xam ne ni moo war am kon jàpp naa ne loolu cër bu mag la démb ci guddi rek mu may woo ne ma il faut ñu jël tëggkatam pour yóbbul ko ko mu ànd ak tëggkat bi nga xam ne moo war tëgg làmb ji kon nga xam ne bis la boo xamante ne nii ñun koy waaj bu baax a baax te it euh, war cee wone doon dem Gambie mais am na loo xam ne war nañ koo gën a a wone pour Gambien yi gën a xam valeur Sénégal ak lan la Sénégalais yi man mhm. di ci sargal tamit moo géet nga xam ne mhm. doomu Sénégal la gis nañ mu def ay sess yoo xamante ne nii mhm. jàpp nañ ne Sénégal Sénégalais yëpp la ñuy xaar ci ñoom loolu ndax ñun nit ki buñ koy sargal duñ ko sargal ci leneen dañ koy sargal ci acte yi muy def ñu gis ne Covid bi fi mu toll ak fi réew mi toll nga jël ay sénégalais yu bari. ne da nga leen defal ay bourse may leen ko. yaakaar naa loolu c'est noble la. ñu gis ci côté social diine bi gis li mu fiy def tamit ñun foofu lañ ko teg. ba ne kii mérito na sénégalais yi ñu sargal ko delloo ko njukkal ci li muy def ndax bu ñu amoon ay dizaine de sénégalais yu mel noonu mhm. tey fépp fu sénégal nekk ci diaspora bi fu doo sonn mhm. kon cent millions yi sénégalais li ne war soxla jàppale leen ci li nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu ak ci li ñuy def d'accord may revenu ci Reug Reug démb jël nañ ko ci mu wax ci benn intervention nee na ku ko fa dëgg na ko masa xaw ma genre mhm, mais may may may may des foofu toujours euh, la fait que nga tuddee ko wala ngay sargal Reug Reug pourquoi nga nga di ko sargal lim nekkoon ci lutte simple la wala lim gagné MMA bi moo tax. waaw xam nga rëg-rëg suñu relation avant muy bëre la. Mhm. ñu bari xamuñu loolu nag euh, dañoo seq ay relation avant muy dugg sax caareen di bëree. Mhm. Euh, ñoo di loon ma ko vraiment ñu seqoon ci ay relation yaakaar naa carrière mhm. jàpp naa ne premier combat ba fii bàyyi na loo xamante ni séq nañ ci lu baree baree bari ci ay waxtaan ci ay jàppalante mhm. ba fi mu ëgg si tey. jàpp nañ ne tey ñi ko yóbbu États-Unis ñun ci lañ bokk. ndax ñoo ko teete jàppale ko tey jii ba mu mën a dem foofu. Mhm. kon tey Reug Reug suñu fierté la ñun. Mhm. ndax dañoo day produit boobu ne dañoo jàpp ci ci li muy def moom it mu jàpp ci bu baax ci li ñuy def ñun. ba pare ñu séq ay teraanga yoo xam ne nii man mën naa Reug Reug moom njëkk a defal teraanga ci mbër. wala moo ko mës a defal ci mbër. muy yëkkati alalam jox ma wala yëkkati dara jox ma ci teraangam ci moom laa ko ma sa gisee ci mbër. kon yaakaar naa ku mel noonu euh, buñ jëlee ndam lu li mu jël béykat yi euh, ci moment bi Sénégal toll. Mhm. dafay jar nag ñu sargal ko. d'accord buñ weesoo relation yi dafa defal Sénégal loo xamante nii jar nañu sargal ko ndax tey fa mu demoon di xeexal Sénégal. Mhm. buñ ko gañe woon day mel ni Sénégal gépp lañ gañee. <laughs> lu ko fa mën di dal rek dañuy jàpp ne Sénégal la dal kon tey kooku drapeau Sénégal la yoroon mhm. doomu Sénégal nag bu demee jël drapeau Sénégal indi ndam ci réew mi mhm. war na doomu Sénégal yi ni ci réew mi di yëngu ci li muy yëngu mhm. delloo ko njukkal sargal ko loolu moo tax moom it ñu koy sargal ci bis boobu di ko ci delloo njukkal bu baax a baax yan condition ngay bëree ngay tëggee ci Gambie ak mm. est-ce que tëgg moo gën a yomb ci promoteur bi euh, par rapport mais actuellement nii. Gambie gis naa ne moo gën a yomb Sénégal ci dëgg la am ndax euh, vraiment. niñ taxawoo événement bi muy autorité gambien yi. police beeg ñëpp li ca war ci jàpp ci bis bi. Euh, li ñu laaj. vraiment méngoowul sax ak li sénégalais laaj vraiment da ko doublé. kon jàpp nañ ne tëgg làmb Gambie moo gën a yomb tëgg làmb Sénégal. Mhm. léegi euh, autorité yi nekk foofu. da nga am licence avant nga fay tëgg. da nga da nga da nga ko. xam nga nag ñun bu ñuy dem ci dëkk. Mhm. dañuy xool réalité dëkk bi ñu def ko. Mhm. comme ñun nee la yàgg nañoo am ay Gambien xam ne suñu ay xarit lañ nekk Gambie. avant ñuy dem dañoo jëndal ci ñooñu licence. ci turu Ndiaye production. Mhm. ñu jëndee ko ci surtout Ndiaye production. mais comme ñoo fa ne dañ koy noo bi dañ koy def noo ñoom ñuy jël seen i affaire signé li ñu war a signé lépp luy contrat ñoom ñoo koy gérer. Ndiaye production ndax dañoo sóowaale woon lu mel nii. xam na label bi du Fallou Ndiaye kese. tey bu Fallou newul am na ñeneen ñoo xam ne ni war nañ ko mën a seere moo tax koy ubbi ci Ndiaye et frère ko ubbi. d'accord Ndiaye et frère mooy yaatal nañ ko ku ne mën na cee gis boppam. d'accord ku ne mën na ko ku ne mën naa nekk ci tête da ngay tëgg ci période Covid. Hmm. maanaam pandémie bi nekk fi. Hmm. yan euh, condition lan la teg pour que nga mën a tëgg euh, galaa boobu. pour nga mën a wàccantoog euh, mesure barrière yi. xam nga li am Sénégal nag amul Gambie. Mm-hmm. ndax tey Covid bi fi mu toll ci Sénégal tollu foofu ci Gambie. Mm-hmm. Gambie boo xoolee seen événement yëpp a ngi daw ñu ngi def li ñu war a def. Mm-hmm. la nga xam ne moom lañ teg seen Gambiens yi rek moom la ñu teg tegu ñu leneen en tout cas ñun nañ jël suñu ay mesures barrières dinañ yor suñu ay sel lépp lu ñu war ñun nañ ko def suñu wàllu wér-gu-yaram ba nga xamante ne ni nañ gën a bëgg nit ñi sax. d'accord kon yaakaar naa amul benn condition bu Gambien yi teg ci côté boobu. ñoom daal ñu ngi doxal te it ñun dinañ leen jàppale seen doxal ñu doxal. d'accord lutte simple ngay def est-ce que prévoir nga fa def lutte foofu. waaw non loolu moom ñu ngi ci déjà nii am nañ ay contacts am na ay champion am ñu ngi waxtaan ak ñoom ba sori nañ lool. yan champion la. non bari nañ ci Gambie xam nga nag euh, làmb dafa neex te wax ci fi nga jëm ndax en général boo xoolee fi nga jëm rek gars yi ne la fay ñaari champion ñoo fa nekk Leket Baar ak France. waaw mais ñu ngi waxtaan ñu ngi waxtaan. ak champion non ñu ngi waxtaan ak champion yu mag yu nekk bii Gambie mhm. pour. vraiment jii ma suqaliwaat lambu Gambie yóbbu niveau bi fi lambu Sénégal nekkoon. Mhm. ndax lambu Sénégal nag ñun am na part bu ñu fi bay boo xam ne nii. suñ ko bayee Gambie rek yaakaar naa bruit bi dina bari lool te it Gambie dina am coow. d'accord dernière question est-ce que prévoir nga jël ay mbëru Sénégal yóbbu leen Gambie ñu bëri. waaw suñu suñu objectif loolu la dañuy jël benn mbëru Sénégal. jël boole benn mbëru Gambie muy grand combat. Mhm. yeneen mbëru ndaw yi dañ jël quelques mbëru Sénégal jël tamit mbëru ñoo ci ëpp nag bu dee xool na la ñuy def ba ku ne mën cee gis sa bopp. loolu ban weer nga ko prévoir. non déjà ni février mars mars bu neexee yàlla mars avril. mois de euh, la car avril. incha allah boobu ñuy wax. ñun bëgg nañoo dëgg Gambie événement bu rëy feete ko feete indépendance Sénégal feete ko jóg Gambie. d'accord ñu ngi ciy xalaat événement bu mag sax bu mag a mag ñu ngi ciy waxtaan. xaw nañ cee sooy trop ak ñi ñi mbëri ñuy waxal ak ñi suñu staff. d'accord boobu gars yi wax ndax Sénégal lamb du fi am. c'est vrai comme lamb du fi am ñu dem Gambie. non lamb dina fi am <laughs> mois wala un mois maximum euh, dina ubbi. ah non góoma ko ak Covid bi fi mu toll nii bon fi ñu toll nii ci Covid. Mhm. bi ñuy tëj lamb tolluñu fa woon. kon tey bu ñu naxantee. Mhm. man sama philosophie ak sama gëm-gëm mooy lamb du am Sénégal ren man loolu laa gëm. comme loolu laa gëm nag moo tax man ma ji ma xool beneen fu ma jëm pour organiser ci fa làmb comme man làmb passion la ci man dama ko bëgg d'accord ma xool feneen fu ma ko dundee ji mais li ma gëm mooy Sénégal làmb du fi am ren buñ naxantee mhm. ñun bi ñuy bi ñuy tëj suñu dëkk bi c'est vrai ñaata kaa lañ amoon tey bariwul amuñu woon sax ay mille cas mhm. bi tëj dëkk bi mhm. tey yaa ngi ay ñaata ay dix mille ak vingt mille ak kenn ba pare nga da ngay ubbi làmb mais buñ naxantee sa dernier mot sama dernier moom mooy sant leen gërëm leen sant famille làmb yëpp di jox appel Gambien yëpp leen lancé appel di wax ne daal la 27 28 incha allah. rabi sa waaw waaw waaw waaw di wax ne nag Gambie drapeau yi ne comme ni ñu ko waxee. Euh, drapeau bi ñu ngi ko tuddee Bakary Badji. Mhm. muy ministre des sports Gambien. Mhm. ñu ngi ko koy sargale moom it di ko ci gërëm ci nungu bi mu ñu ko nungul. ndax mhm. ay doomu Sénégal yu ànd ak doomu Gambie bu ñëwee. tëgg fa événement bu toll noonu moom en tant que ministre des mu jiite sportu Gambie nu ngoo jël drapeau bi. loolu moo lay won ne autorité gambien yi am na lu ñu soxla Sénégalais yi. moo lay won ne ñoom taxaw nañ pour jàppale Sénégalais yi. kon duñ def lu di ko gërëm ci nungu ba mu nungu. di ko gërëm ci d' accord boobu mu d' accord pour nungoo jël drapeau boobu. Mhm. beneen drapeau bi ñu ko tuddee Idrissa Ndiaye. le jeune Mara Idrissa Ndiaye bi nga xam te ni seen doomu Sénégal la surtout ak Daawur Mbaye mhm. moom it nekk fa gàmmu fan yi di fa liggéey mhm. liggéey bu am solo ñu jël benn drapeau bi jagleele ko ko mhm. kon daal loolu la ñuy wax di lancer appel Gambien yëpp di leen wax ne incha allah dinañ gis événement bu rëy ndax Mbayang Loum dina fa teew ñoom Maodo ñoom ñëpp nañ fa teew incha allahu ñu def Gambie lu rëy rëy rëy te rëg-rëg li mu wax dégg ngeen ko mhm. ñëpp dégg nañ ko nee na incha allah képp kuy fan sam wala ngay mhm. supporter am na nga ñëw mhm. ndax dina fa wane boppam ba sénégalais yi xam ne wane na boppam jërëjëf Fallou jërëjëf Fallou jërëjëf euh, internetu Leewtoo TV ñu amoon mbégte jàkkaarloog Fallou amoon mbégte également jàkkaarloog yéen dinañ jox digg daje ci yeneen i jotaay jërë ngeen jëf